tey fii ci direction générale des élections indi ñetti dossier ñaar yi dossier wu retrait ci liste wu Dakar bu kii nga xam ni mooy Joseph Sarr nekk ci liste bi ak kii nga xam ni mooy Pala Samb nekk ci liste bi boo leen semaine passée ñëw nañ fi indil leen dossier boobu le mercredi ñoom ñu xamal ñu ni ñoo ngi ci parrainage bi ba tey moo tax mun ñu jël dossier bi et tey ci altine la ñuy ubbi lépp lu jëm examen dossier wu candidature bi nga xam ni jot nañ ko et que nanu bàyyi ba booba ñu dellusi si yéeme nag mooy ñëw nañu comme ni nga xam ni noonu lañu ko demandé woon tey fii mais pendant une heure de temps yéen a ngi taxaw maa ngi woon ci biir di waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga pour ñu jël dossier bi nga xam ni mooy dossier wu Yewwi Askan Wi te loolu nit waruñu ko tere mais à notre grande surprise malgré la ma leen wax insisté ci ndaxte kenn mënul tee nit ci biir list bu fekkee bëggu ko ñoom ñu ni loolu duggul seen compétence bu ñu jël dossier yi kon dossier yi refusé nañ ko encore une fois jël ko te ñoom ñooñu waxoon nañu dellu si altine ndaxte bu ñu dellu see altine ci période boobu la ñuy commencé examen yi loolu jamuñu fa gis ngeen bi ma yegsee dama yegsi ak benn huissier de justice nga xam ni moom dafa war ñëw constater li ñuy def ci biir mais même huissier de justice boobu dañuy ci batiment bi te ku nekk xam nañ huissier bu ñëwee war def constat war nañ ko mën bàyyi mu accéder ci bâtiment kon ñaari courrier yooyu ñu duñ ci jël benn ñetteelu courrier bi moo doon li ñëpp xam te Benno Bokk Yaakaar def ko mooy dépassement ci lim bi nga xam ni moom la waroon def ci lu gën a rëy ci parrainage bi ñëpp xam nañ ni nombre bi warul woon weesu cinquante cinq mille trois cent vingt sept ñoom ñu cinquante cinq mille trois cent vingt huit même bi ñu jéemee def rattrapage boobu génne benn arrêté bi nga xam ni ministre bi rek moo ko gis ñun gis ñu ko fenn dafa jékki-jékki rek ci seen benn communiqué ñu gis ko alors benn acteur politique gisul arrêté boobu même bi ñu jéemee def rattrapage boobu ñëpp gis nañ ni bi nga demee ci journal officiel bi da ngay fekk ni le cinq lan ko fa dugal alors que ñoom ñoo ngi déposé la 4 donc ñu indi woon courrier pour xamal leen ni allah kulli ali ñii mën nañu am liste ci élection yi yi ñu jëm nii ci biir Sénégal nii ci bitim réew kon ci cinquante quatre circonscriptions yëpp muy quarante six départements à l'intérieur comme huit départements à l'étranger Benno Bokk Yaakaar bu fekkee yoon rek la ñuy wax waru fa am liste warul am liste nationale parce que kenn umpalewul que en deux mille dix neuf lenn rek la éliminer éliminé Malick te arrêté boobu yéen am ngeen ko arrêté bu conseil constitutionnel bi di wax ni lu tax bokkul mooy dafa dépassé nombre de parrain donc ñu indi woon courrier boobu aussi déposé que ñu ni courrier boobu tamit duñ ko jël ndaxte du fii lan koy defee li liñ doon def ci parrainage yi parrain ko donc di wane nit ñi nekkuñu ci disposition pour que tey jii nii yoon bi nu jaar nga xam ni jàpp nañ ni mooy yoon bi normal droit jox ñu ko yoon bi nu jaar jàpp ñu fekk ñu ci yoon boobu loolu ñu koy dénoncer di ko regretter di ko wax fii ci kanamu sénégalais yi di leen jël à témoin ma ñëwoon tey def loolu ak Cheikh Youm ak ki nga xam ne aussi mooy huissier de justice. lan lan la ñuy xaar lan mooy conséquence wax nañ lu ñu ko fenn parce que tey nee naa leen correspondance bu ko nit defee war nga jël en retour nga tontu wax ka lu tax jëloo ko mais yam ci ni duma ko jël képp. parce que bokkul ci compétence yu li nga xam ni moom ngay nekk di def nii. loolu dafa jaaduwul parce que nee naa leen li ngeen di def du élection locale du élection présidentielle li ngeen def élection législative dossier yi ñu indi du dossier wu présidentiel du dossier wu local dossier wu élection législative nan la ñu mën dissocier ñaar yi ba génne lii ñu indi tey ci compétence su li ngeen di def d'autant plus que Yewwi Askan Wi dina quel que soit Alpha am taxawaay bu wér parce que le président Macky Sall li mu bëgg def mënul ne ñi damay éliminer liste Yewwi Askan Wi Dakar ba pare moom def élection ci biir Sénégal ak ay listam bitim réew ak ay listam alors que moom ci boppam respecté wul nombre de parrains yi loolu xel xalaatu ko mënuñu bàyyi mu sedd pour la bonne et simple raison que moomul réew mi te mënu fi appliquer li nga xam ne tey loi bi wax ko loi bi li mu wax mooy moom ci boppam cinquante cinq mille trois cent vingt sept la coalition mu doon ci lim ci parrain coalition mi ngi déposé cinquante cinq mille trois cent loolu loolu daal ci dellu si li ma mën wax ci loolu parce que ku xam xam ni lu mu metti metti dëgg rek mooy génn sama gémmiñ parce que politique yi dugguma ci pour caaxaan dugguma ci bu ñu jógee pour changer réew il faut ñu am doxalin bi nga xam ni sénégalais yi dañuy am confiance ci ñun te confiance boobu mooy en toutes circonstances di leen wax li am te dama bëgg ñu déglu ma bu baax a baax a baax keroog ba ma génnee ci direction générale des élections dama ne liste bii du liste ba ma déposé ndaxte effectivement bi waxtu dépôt liste bi jote dafa am ay instructions yi nga xam ne joxe nañ ko pour que ñu retire par la Samb mën a dugal Ngone Meng mais malheureusement ki nga xam ni moom laa préposé woon ci dépôt yi muy Saliou Sarr deful loolu li mu demee dafa dugal beneen tour parce que nee na dañ ko conseillé ni que sixième ak septième position la parité respecté tout bi ma jotee liste bi le lendemain gis ni parité bi ce n'est pas respecté ci laa jógee pour xam la xew ci laa jógee pour également engager procédure mais li wér mooy kenn warul ko woon foofu conseiller ba muy changer une chose parce que ñun ñoo ko def confiance ma jox ko sama cachet mu déposer tous les toutes les listes départementales comme ni ma ko defee woon fële Matam ak Djibril ngoom mu def leneen jox ko sama cachet pour mu déposer toutes les listes départementales déposer wul liste Dakar comme ni nga xam ni moom lañ ko doon xaare donc loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg ji parce que ku ma xam-xam ni dëgg rek mooy li wér mooy li wér mooy direction générale des élections amul woon naan ko sixième ak septième war nañ ko respecté war ñu ko respecté ba mu waa DG moo ko wax loolu parce que moom moo ma ko wax da jàpp leen ni sama gémmiñ lu dul dëgg ci génn parce que politique bi bëgguñu jóg changer réew mi te duñ ko teg ci dëgg danoo bëgg suñu Sénégal mel ne France mel ne feneen te loolu lu koy indi mooy dëgg en toutes circonstances donc moom bu waxee ni ñoo ko wax loolu mënuma def lu dul gëm mais warul woon topp tamit la nga xam ni moom lañ ko wax ndaxte ñun ñoo ko jox liste en présence de Cheikh Youm qui est là avec moi en présence de du Diomaye fay ci laa ko waxee defal directive bi directive bi quel que soit alpha lépp lu ko mën a joxe ci biir nga yor sama cachet waroo ko changé te xamuloo ma hmm. donc ci biti lañ ko xamee mais tey direction générale des élections war ñu ko woon apporter war ñu ko woon indi ak ña fa nekk pour mu changer quoi que ce soit alors que waxuñu ko loolu mooy dëgg ci moo tax ma ni liste bi man mënul nekk sama liste parce que du loolu laa demandé woon ñu déposé mais nag dina am tey jii nii nga joxe sa kàddu jox ko kenn mu def leneen dal nanu Matam dalaat nanu aussi au niveau de Dakar c'est ça la vérité mais en la DG maintenant la DG n'avait pas à intervenir pour faire changer quoi que ce soit sur list bi nga xam ni moom la ñu déposé dañu waroon juste constater bu ko defee ñu déposé mais warul woon wax kii déposé defal lii defal lële ba tey mu indi ñoom bi mais li wér mooy li wér mooy ñun am nañu yoonu changé ko te am yoonu changé ko moo ñu yëkkati pour mën a ñëw indi li nga xam ni moo war pour que ñaar désisté ñu mën a dugal ñaar loolu moo ñu indi te gisuma lu tax ñu war a tey bañ a recevoir suñu ay dossiers mais nag loolu loolu loolu du wéy loolu du wéy xam nga normalement mandataire mooy déposé mais ku xam équipe ni muy doxee boo ñëwee ci liggéey da ngay partager les rôles man dama yor une équipe dans cette équipe ñu bare nekk ca ñi yor triw dossiers yi ñi yor rangement dossiers yi ñi yor saisie dossiers yi ñi yor dépôt dossiers yi te la ca bees mooy dañu am alliance ak kii nga xam ni mooy wàll li ma ëppaloon njariñ man mooy respect wu accord yooyu parce que plan boobu plan la bi nga xam ni dama ko définir pour mën a am plus de cent douze bu yàlla defee ànd boobu am bi ñu defee suñuy calcul sur les cent soixante cinq donc fexee ba list bu nekk loolu nekk ca lu ma yitteloon la moo tax ku nekk da nga koy jox benn rôle mu def ko te rôle boobu moom lañ ko jagleel jour boobu d'autant plus que moom moo travaillé ci département bi au niveau de la coalition gën a maîtriser nit ñi tur yi nga xam ni moom la ñu jàpp ci département yi pour ñu jóge jógee yeewi askan wi nekk ci liste boobu ñu war bokk ak wàllu loolu moo ko dugal ci loolu ma jox ko cachet bi pour mu def loolu c'est de bonne fois parce que jàpp naa ni ñëpp ñoo nekk mais bu demee ba changement war am direction général des élections war ñu ko ci yóbbee te wax na ko répété ko ñoom ñoo ko wax loolu loolu moo tey seen responsabilité ci li ñuy def nii